li nekk ci yoolub sarax kenn mënu laa wax nu mu toll ndax xadisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ne abi urayra moo ko nettali radiallahu taala anhu mu ne sallallahu alayhi nee na sabatun yusilluhumu llahu fi sillihi yowma sillu ila sillahu yowmal xiyaam day bu nit ak jinne malaaka teewee suñ borom xëcc jant bi ba muy bëgga laal boppi doom aadama yi seen yuur yi di xeb kenn ku nekk di xuus ci ñaq bakkaaram ñun yow mal xi am ñetti ker rek ñoo fa am keroog li ñuy tuddee sillul ars malaaka yi ñoo koy kerloo liwaawul hamdu muhammad sallallahu alayhi wa ak sahaba yeeg anbiyaahu yi ñoo koy kerloo ñu ni ñetteelu ker gu ne mooy kenn ku nekk sa keruk sarax ki bari woon lu muy saraxe bu keroogee sarax su mooy soppaliku ker ñëw di ko keral ba jant bi du ko lakk sallallahu alayhi wa sallam ni nag yowmal xiyaam bis ba nga xam ne ker amul lu keroog suñu borom nga mu ni aji sarxe bu keroogee yàlla dana ko keral daf ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii ñoo xam ni bis ba nga xamee ne ker amul lu dul keroog suñu borom nga tabaaraka wa taala suñu borom ci boppam mooy leen di keral juróom-ñaar ñooñu nag daf ca lim waa ji nga xam ni day sarxe ngir yàlla te buy sarxe bu ko loxom ndeyjoor bi di joxe bu càmmoñ bi du ko yëg du ko caa limaale bokk na ci xale bu góor bu teel a topp boroomam te nangul ko lim na ko ba muy juróom-ñaar loolu taxu nu jóg sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ci beneen addis ni asadaqatu tutfiul xatia kama tutfiul ma annaar nee sarax day fay bàkkaar day far bàkkaar ni ndox di fare tilim tilim sarax day far bakkaar ni nga xamee ni noon la ndox di fare yére bu tilim ni mu koy fóote ba mu set sarax weesu na loolu sarax nit ki dana tawat dem ci docteur suba ngoon guddi bëccëg ñu ni ko gisuñu dara mu dëkkee saraxe yàlla saafara tawat bi sarax day fay merum suñ borom tabaaraka wa taala ci kaw suuf Seexul Bamba radiyallaahu taala nee na asadaqatun waa'idatun qad tadfa'u sab'iina miitatan min suu'i faw nee na moom Sëñ tuuba benn sarax bu ab jullit wala doomu aadama jël ko saraxe ko ngir yàlla rek tabaaraka wa taala nee yàlla dana sukkandiku ci sarax boobu mu saraxe woon ngir yàlla faral ko ci juróom maanaam fegal ko ci juróom ñaar fukki ñaawteef juróom ñaar fukki balaa yàlla dana ko ko ci fegal ci benn sarax boobu mu saraxe ngir yàlla rek waaye nag wuute na ak sarax yu mel ni sarax ñun waa Sénégal sarax boo xam ni du weesu ñetti sondeel ñetti kayit yu weex juróomi dërëm xam nga sarax boobu yàlla taxul ku tax bu xaaba bala ko diggal bu xaaba bala ko diggal moom nga sarxeel waaye sarxeeloo yàlla bu xaaba bi la ni boo xëyee sarxeel ñetti sondel ak ñetti kii di weex jox ko sëriñ daara ak juróomi dërëm walla donga kooka nga sarxeel booba sarax moom munu laa jañal dara dara dara munu laa jariñ dara waaye nag fekk aji lot nga dindil ko lot lottam googee te yàlla rek tax moo dee joxe misaal lu mel ni suñ dëkk bii di Touba nga fekk koo xam ne ma nga nekk ca sancaan ya di rootaan nga xëccal ko robina wala nga fekk sëriñ daara ba nga jox ko dund bu nangami weer ngir dongaam wala nga fekk koo xam ne daal ma nga ca hôpital ba di faju amul lu mu fajoo nga dem fayal ko lalu hôpital bi wala nga jëndal ko ordonnance sarax yooyu moo tax sëñ Touba di wax naan saddaqatun waa'idatun xat tadfahu sab'ina mitatan min suu'i faaw waaye du caaginug ni sarax yi nga xam ne ñoom la waa Sénégal di saraxe ni boo xëyee rek bañ a accident wala bañ ku la dàq ci sa liggéeyukaay moo tax nga saraxe ko buxaabi bi moo la ko digal Seexul Bamba nee na radiyallahu anhu wa tutfihul ghadaba wal xataaya itfaa ma an naari sil ataaya nee sarax waxuma la juróom-ñaar fukki deyin yu ñaaw yim lay faral mu ni waaye moom sarax sax day fay merom yàlla ci yow jaam bi yàlla dana ko mere mu xëy sarxe rek yàlla teggil ko mer ma mu ni ni ndox di fayee safara noon la sarax di fayee merom yàlla waaye ban sarax bu mel ni bi ma waxoon léegi rek mooy boo xam ni yàlla rekk a tax yàlla rek a tax gis naa ci téere taarix yi Seydina Suleymaan alayhi salaam benn jaamu yàlla dafa ñëw di ko jàmbat eh, kii eh, wenn rab benn njanaaw wenn njanaaw moo ñëw di ko jàmbat ni ko man de damay def saabu man ma nenee rek am ku ñëw woon ni nen yi yóbbu bala maa tostan rek bala ma ko bóof ba muy tostan rek mu ñëw woon ni ko yóbbu comme Seydina Suleymaan suñ borom daf ko tàggataloon aalam bi nit ak jinneeg njanaaw yeeg lépp lu yàlla sàkk Suleymaan bi ko picc mi waxee loolu mu jox ndigal jinne yi leen ci jinne yi soldaar yi jinne yi ni leen dem leen fa picc may nen ngeen gardel ma ko bu waaj a ñëwee di wanni nen yi ngeen jàpp ko indil ma jinne yi bu ñu demee toog fa saa bu ñu ñëwee waa ji dana ñëw woni nen yi ba dem te duñ ko gis benn dana wonni ba dem ñu doog a ñëw wala ñu ñëw ba dem mu soog a ñëw woni nen yi mu di ko def di ko def ba yàgg Suleymaan ñaan boroomam ñu ko dama bëgg nga wan ma waa ji ci boppam ginnaaw jinne yi mënuñu koo jàpp soldaaru jinne yi ñu daal di koy wan suñ borom wan ko waa ji Suleymaan woo waa ji mu ñëw mu ne ko yow looy looy jëfe maanaam looy def mu ne ko ci lu mel nan mu ne ko yow nangami weer a ngi nii may yónni sama soldaar yi jinne yi ngir ñu jàpp la mënuñu laa jàpp ci wonni gooy ni ne ni picc mi waaw bala ngaa xëy looy def mu ne ko man daal xaw ma dara lu may def loolu xanaa su ma saa bu ma xëyee bala maa génn sama kër danaa saraxa ngir yàlla mu ne ko waaw kay sarax soosu moo de ci musal kon saraxe lu am njariñ la ba tax na it koo xam ni muddum koor raw na la mooy xaar nga ba jant fenk benn nga naaje wala da koo koy a am ba tey nag bul wax ni comme bu ma ko joxee ab sarax rek la kon naa ko bañ a joxe déedéet beneen bi ci des mooy bu fekkee ni dangay ngay miskiin ñu di la jox asaki muddum koor ba nga am lu la ci bis bi ba tàmbalee am looy denc ati yow it asaka yi war na la bul wax mukk ni dama koy denc suba ak gannaaw suba déedéet yow it liñ la jox da nga ciy génne asaka yi muddum koor ci ñi ngay dundal léegi nag bu fekkoonte ni yàlla daa dogal nga génne sa dundub tey bi nga génnee sa dundub tey léegi am nga fukki doom génne nga ci sa dundub tey léegi li des ci sa alal mënta génneel fukki doom yëpp juróom ñi rek la mën a génneel ba tey bul wax ne ah comme dajul ñëpp du ma génne déedéet juróom ñoo ñu fi ne génneel leen gannaaw ñoom rek la doy ñoom la mën a génneel ba tey su boobaa ñooñu da nga leen di génneel rek waaye bul wax mukk ni comme fukki doom laa am mënumaa génneel ñëpp naa ko far ba déedéet li nga dese bi nga génnee sa dundub surne daal sa su sa dundub tey ba nga xam ne doo wër di laaji léegi la ca des da ngay génne ba fu mu yem rek kon muddum koor a ngoog am na ci xadis bu wax ni sa alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni génnewoo ko sa koor suñ borom daf koy bàyyi maanaam tuyaabay yoolub sa koor suñ borom daal du ko recevoir koy bàyyi asamaan yi ci diggante bi ba keroog nga koy génne mu door ko recevoir denc ko ca magasin yi nga xam ne fa lay denc tuyaaba yi ji jëf-jëf ju baax al amalu saaliya juróom-ñett ñi alxuraan tuddi nag ñoom ñëpp ko sañ lekk koo ko ci jox baax na waaye li gën daal mooy nga tàmbalee ci miskin bi juróom-ñett ñooñu alxuraan dani innama sadaqaatu lil fuqara wal masakin wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaab walgaarimiina fi sabilillahi wa ibnu sabil faridatan min allahi wallahu alimun hakim mi nga ca suuratu tawba juróom-ñett ñooñu muy faqiir bi miskin bi ci ñi nga xam ni dañuy liggéey ci sàkkaat yooyu le fekkonte ni réewum lislaam la nga xam ni ñuy dajale sàkkaat yi di ko joxe sàkkaatul fitri ñooñu mën nañ leen caa jox ko noonu it ki nga xam ni dafa bëgg a gore ba juróom-ñett ñooñu daal mat ñooñu ñoom ñëpp sañ nañoo lekk sakaatul fitri niñ sañee lekkee sakaatul maal su boobaa koo ko ci joxit ba tey rek baax na waaye eh, alxuraan si naa liñ karamallaa wajha dañ ko mas laaj ni ko waaw ñiy jàng alxuraan ko ci ëpp tuyaaba mu ni kii taxaw di ko jàng mu ëpp tuyaaba mu ëpp tuyaaba ki toog ki toog mu ëpp tuyaaba ki tëdd ñu ne mu ni suñ borom ba muy la tàmbalee allazina yaskuroona la xiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ardi rabbana maa mu yàlla tàmbalee mu yàlla tàmbalee rek loolaa kon moo taxit eh, bi fuqaaw yi ñëwee ci innama sadaqaatu lil fuqaraa ñu ni kon nañ tàmbalee ci fuqaraa bi faqir bi bu fekkee ni sàkkaatul mal la ndax moom sëñ te di laaj kon suñ maam na loolu mooy liñ indi woon ci wàllu sàkkaatul fitri xëy na du ñàkk ay njumte ñu baal ma ko teewlu yépp yëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ndokkeelaat jullit ñi ci weeru koor wu teddu màgg wi nga xam ni mu ngi tàggoo yàlla nañ yàlla nangul sunu koor ngën gi nangu fulal na ko ngën gi ful jangal na ko ngën gi jang dencal ñu ko foo xam ne du yàqu ba yowmal xiyaamal akbar di ñaan yàlla rabbi sitoo jàlla koor gi buy dem yóbbaale tawat ji nekk ci réew mii sànnil ñu ko mbadoxun fu kenn xamut borom mën na ko yàlla na ko def te def gi du ko wàññi dara wa ma saalika alallaahi bi aziz innaka ala kulli shay'in qadir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh